ndigal li bàyyeekoo woon ci Cheikh Sidil Maxtaar Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem liggéey bi nag Serigne Sidi Naar Diène liggéey ko ba mu àgg ci alxamis ji dëppook le 17 septembre 2020 di 28 muharram atum 1442 ginnaaw gàddaayuk yonent bi salallaahu alayhi wa salaam cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke Basiiru xalifa général des Mourides ñëwoon fi doon nemmeeku si liggéey bi ngir ñu jébbal ko li nga xam ne moo di caabi yi. sëriñ bi bi mu agsee ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom la àndaloon wan nañ ko sald de bi leeral ko liggéey bu am solo bi waaye li ko jiitu mboolem kilifa yeeg njaboot gi ziar nañ ko sëriñ Fallou Galass Sylla leeral ko li nga xam ne moo jëmoon ci liggéey bi. mi ngi lay seeral ne bokk yépp noonu lañ la taxawoo ci liggéey bi nee na nag mi ngi boolewaat liggéey bi ak jëmmi boppam ak njabootu sëñ naar jenn gépp ak rakkam ju topp ci moom. ni muy tege caabi ji sa loxo lay tegewaat seen jëmm yi sa loxo jébbal la ko ndax ñoom doonuñ ci seen bépp dara benn baat rek la ciy dolliku mooy taalibe yi dañ cee sonn coono boo xam ne bu sañoon soo leen xoolee bëtub yërmande rek wóor na ko ne seen aajo dana faju mu bëgg nag loolu sëriñ tubaa waxoon sëñ Isaa na ko sa jëf moo la jiitu ci kër gi ba fu ma gestu sa jëf seere la fa nee na moom delluwaat ci kër ga ci bunt bi la taxaw di dégluwaat sa ndigal ndax daa bëggoon foo gestu ci say bër rek daje faak jëfam yoo xam ne ci kër sëñ naar lay bàyyi koo jaar ci kër sëñ baara dem ci kër sëñ isaa nee na kon mi ngi toogaat di déglu ndigal di xam ne xolam sedd na xelam gën naa dal mi ngi gën a dëgëral yaakaaram tey ñaan yàlla nag lépp lu nar a jëlee ci tuyaaba ci liggéey bi yàlla na ko yàlla teg sa jëmmu ji muy fan wu gudd lool wa ànd ngërëmul sëriñ tubaa ak àggale sab liggéey fa nga ko bëgg a ci barkeb Serigne Touba. ginnaaw loole la ko Serigne Sidy Nar Diène jébbale caabi yi boole ci addiya joo xam ne xayma nañ ko ci 3 millions 700 mille francs CFA mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne def na ko tey jii di bësu mbégte ci moom ginnaaw bu mu jébbalee caabi yi boolewaale ci addiya jilee ci la yëkkatee nag ay kàdduy cant jëmale ko ci Cheikh Maodul Muntaxa Mbàkke Basiiru cib taxawaayam waaye liggéey bi nga xam ne moom lañ leen santoon mu ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nee na mi ngi nuyu sëriñ bi te di ko siyaare. nee na tey yeesalaat ak njëbbalam akuk taalibeem. ànd ko ak nag njabootuk sëriñ naar jenn gépp ak taalibe yépp neena di sant nag ci dikk gii nga xam ne dikk nga ko fi. ngir nemmeeku liggéey bi. nee na wóor na ko ne boo yabaloon donga ba gën a tuut mu dikk fii na yaa ko yabal nee na doy na ko sëkk kon nag boo jógee sa jëmmi bopp ànd ak sa njaboot ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba rek a tax nee na kon xolam sedd na guyyu xolub taalibe it sedd nañ guyyu noo ngi ñaan yàlla mu yàggal la fi lool. te may la ak wér ba mbooleem li nga yéene ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi yéene ko ci njaboot gi ak taalibe yi ak jullit yépp yàlla defal la ko te ñu ànd ko nag ak yow ndax yow kat ku la xam xam na ne sa bëgg-bëgg bépp sa yëngu ak sag dal mooy mooy ñëpp am aajo ju faju nee na jëlale nga sax murit yi ku la xam rek ci loolu rek la la xam kon nag ñoo ngi la koy ñaanal baax a baax a baax nee na xolam sedd na guyu di sant itam sa jëwriñ jii nga àndal di cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mii ngir moo teg si woon xeer wi ba xeer wa jàlle it da koo ànd ak nun saa su ne muy ñëw di ñu seet si di ñu soññi di ñu ñaanal bam nu joxee ndigal li itam yët ñu plan bi Cheikh Sidi El Mokhtar jox nu ko moom mii mu indi plan bi lan la waxoon lan ko waxoon na ko ñaanal na ko ci ci dara darajey sëriñ Touba yàlla defal nañu ko ci kon noo koy sant bu baax sëriñ Moussa sa jëwriñ jiitam ñëw na fii am na fi lu ëpp waxtu sant bu baax ñaanal nu noo ngi koy sant bu baax ñoo ngi gërëm ñëpp liggéey bi nag mbàkke liñ ciy ñaan la sëriñ Touba waxoon Cheikh Issa ca jumaa yi njaareem ja ba mu noppee mu jébbal ko caabi yi ànd ak mag ñi sëriñ Touba da ko wax ne ko Xiisa sa tabax gii misbaahu ahlu samaa yi wa najaatu ahlil ardi mooy lampum ñi ci kaw mooy lampum ñi ci kaw mooy muccug ñi ci suuf mooy muccug ñi ci suuf ku ci teg bët ku ci teg sa bët ci tabax gii mu neex ko ci xolom mu neex ko ci xolam mbiram dana ci yéwee ne àdduna ak alaxira Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu liggéeyloo sëriñ Bara armeel yu yees yi muy Baqiya mu wàcc ab liggéey ci biir liggéey bi sëriñ Naar jenn àggale ko keroog bi mu joxee sëriñ Abdou Lahad caabi yi da koo wax ne ko sëriñ naar waxuma la yéen waan njeen ñi ko doon liggéey waaye képp ku fa jaar def ca daraam rek mbiram dana ci yéwéne adduna ak alaxira waxuma la nag yéen ñi ko doon def loolee nag yaa fi sëriñ Touba te mbooleem ñi la fi jiitu woon tàmbalee ci Cheikh Mamadou Bachir seex Mouhamadou Moustapha sa mag ju baax ja seex Abdoul Ahad seex Saalihu sa way juri ak sa mag yi fi jaar yëpp ñoom ñëpp làq nga seen ngërëm kon làq nga ngërëmul sëñ Tuubaa noo ngi ñaan kon loolu yi nga fasal nu ko ci suñ liggéey bii te boo ko ci fasee danañ ko am noo ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax liggéey bi nag niñ ko liggéeyee ñi ko liggéey ñëpp. ñi ko liggéey ñëpp. taalibey kër gi rek lañu. taalibey kër gi rek lañ. jëggaani wuñ fenn dara. jëggaani wuñ fenn dara. liggéeyu murit lañ ko liggéey itam murit rek. aca bi jiite woon liggéey yi. maçon bi jiite woon liggéey yam ko àndal. yam ko àndal. taalibey gi lañ. conférence bi ki ko def. bi ki ko def. taalibeb kër gi. ki pentir. taalibe kër gee. waaye architecte bi defar plan bi. waaye architecte bi defar plan bi. bi ñu noppee. bi ñu ba mu fi ñëwee. dana li ma leen joxoon. dana li ma leen joxoon. bàyyiwu leen ci dara. bàyyiwu leen ci dara. li fi des ci xaalis. bi mu seetee xaalis bi ko doon liggéey li fi des. ñetti million la. ñetti million la. ak téeméeri junni. ak téeméeri junni. danañ la ko jox. danañ la ko jox. teg ko ci sa loxo. muy addiyee ji. Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag. bis bu Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag. muy ubbitali nag. muy ubbitali nag. luñ ci soxlaa jëfandiku nag. luñ ci soxlaa jëfandiku nag. jëfandiku ci. sëriñ Bassirou jox na ma ndigal li nga ko jox. sëriñ Bassirou it jox na ma ndigal li nga ko jox. ngir koy saytu barab bi. ngir koy saytu barab bi. Ali Jenn mi fi nekk. Ali Jenn mi fi nekk. bañ tàmbalee ba nëgëni. bañ tàmbalee ba nëgëni. moo fi nekk yor ko. yàlla dogal na yi fi nekk yëpp. miin na ko. te luñ fi war a def itam. saa yu woo mbooloo mi. danañ dikk def ko